gan gi Dame Mbodj général national CUSEMS authentique bokk ci coalition citoyenne le peuple ñu ngi lay nuyu Dame Mbodj maa ngi leen di fay waa Rewmi FM ñu am mbégte dalal ci matinalu tay bi alors tàmbali kook euh, ginnaaw seen yëngu-yëngu yi ngeen amaloon euh, kilifa diine yi rawatina Serigne Mountakha Mbacké dal dinay euh, tàmbali dox tànki jàmm seen digg ak régime bi di nguur gi fi nekk président Macky Sall notamment alors lan lañu ñu a jàpp ci yooyu médiation yéen euh, surtout yow noo ko jàngatee. waa jërëjëf euh, ñun moom euh, ñëpp xam nañ ni ñoo ngi doon waajal li nga xam ni moom moom lañ mébatoon muy samedi bii ñu génn ñu dajale Sénégalais yëpp ñun ñi nga xam ne ñoo ko séq ñu mën cee lim coalition citoyenne de peuple ak m 2 ak yeneen euh, association ki collectif yi mel ni Y'en ak ñoo lànk ak ñu mel ni ñoom ak ay euh, parti politique yi nga xam ni ñoom engagé wu nañ ci mbir mi euh, loolu lañ nekkoon di waajal comme niñ ko mos a defee bu Sénégal tollee ci guute ndaxte loolu lañ doon def ay deux 2011 jëm 2012 bi nguur gi fi nekkee nguur gi fi nekkoon booba biñ bëggee jalgati yoon kon nag loolu biñ nekkee di ko waajal ci la sunu sang bu tedd bi sëñ mun euh, daa di moom ñi ko jege daa di nuy woo ne nu nag euh, xalif général des Mourides sëñ Muntaxa daf leen a bëgg a yónnee ab délégation bi waxtaan ak yéen ndaxte Touba liñ daan def mooy buñ la soxlaa dañ lay woo parce que kon woo nga dem wuy ji leen waaye pour jox mbir mi wax dëgg yàlla dayo bi mu am ndaxte ku ne xam na ne lii nu génn gun ci Sénégal ak li fi yàqute ak bakkan yi fi rot duy caaxaan kon sëñ Muntaxa nag xam na ni euh, mbir mi toll na foo xam ni bu ci dugalul loxoom wala ku mel ne moom dugal ci loxoom musiba mën naa am ci Sénégal hmm. loolu moo tax mu yónnee ñu délégation bi nga xam si sëñ Basiiru Mbàkke Poroxaan moo ko jiite euh, ànd ceeg ay kilifa yu bari ñu ñëw seet si ñu ñun ci association yooyu mala la ma filimal euh, nga xam ne ci gënoon a fees Aïda Mbodj bokk na ci ci parti politique bi euh, ak euh, Girassi ak euh, Cheikh Bamba Dièye ak ñeneen i association yoo xam ne mën nañ cee lim Cheikh Tidiane Dièye ñu mel ni ay ñoo lànk ak Y'en a ak ñun ñi waa coalition citoyenne le peuple Ousmane Sonko fekkee na ko ak délégation ñu toog waxtaan déglu ki nga xam ne moom la kilifa gi yabal mu ne ñu ah sëñ Muntaxa daal li mu bëgg mooy ngeen teg lépp ci suuf ginnaaw bi ngeen tege lépp ci suuf te jàpp na ne moo gën ci yéen gën ci réew mi bu ko defee ngeen jébbal ko nag li nga xam ne moom mooy seeni ñaxtu yi ngeen yaakaar ne bu amul jàmmaarloo du mën a ñàkk ah ñu daal di ne ko nag loolu rafetlu nañ ko ndaxte sëñ Muntaxa ñëpp mooy sunu kilifa ñu ko kon loolu mën a ñaan ginnaaw naam naam ñu ngi doon ko waajal waajal bu metti waaye nag euh, moom bu nu ñaanee euh, mënuñu dul euh, defal ko lim bëgg ci lañ ko waxe nag ni ko li taxoon ñuy jóg di yëngu-yëngal li ko waraloon mooy benn ñi nga xam ne dañ leen a téye ci kaso yi ci jaay doole nga xam ne dañ leen a fekkoon ci seen i kër ñenn jàpp leen ñi des da doon seetaani vidéo ci jàmmaarloo ba ni ñoom bokkoon nañ ci dem jàpp leen ak ñi nga xam dañoo balaa sax manifestation yi am lañ leen jàppoon muy ku ci mel ni Clédor seen nga xam ne mu ngi bokk ñun ci coalition citoyenne le peuple ak Assane Diouf ak Guy Marius ñu ne leen ñii kat moom mu wax dëgg yàlla ak ngeen fa àndal yépp ci kaso bi nga xam ne bis buñ fa teg rek dolli ko ci rek euh, mi ngi nekk bis boo xam si euh, jaay doolee ko waral nañ leen leen bàyyi ñu dellu ci seen i mbokk dellu seen i kër bu ñu paree ci loolu Ousmane Sonko comme ñoom xam nañ ni liñ ko doon toppee dara amu ci te Sénégalais yëpp leer na leen bi ñu jotee PV yi ñu liir ko ak li nga xam ne moo tukkee ci l'enquête bi ak lépp li nga xam ne moo ci am ci seeni pexe Ousmane Sonko dem ñu woo ko mu ni mu ni day wuy ji ànd ak ci euh, farandoom ñu kar ko ci mbedd mi daal di koy daal di koy jël dugal ci seeni wata yóbbu ca euh, gendarmerie def lu leen neex jaay doole parce que xam nañ ni dossier bi dara nekku ci comme dossier dara nekkuñ nag ñu leen Ousmane Sonko moom it bëgg nañ koo bëgg nañ loolu ñu teg ci kaw muy contrôle judiciaire muy dem yenn saa yi di wuy ji juge bi fitna rek lay indi ci réew mi nañ teggi loolu lépp bàyyi ko mu delluwaat ci activité am comme nam ko daan defee comme ñoom lajj nañ ndaxte dañ doon jéem a yàq deru jàmbur ak di ko jéem a tuumaal siif boo xam ne amul lenn lu ci laale ñu ne leen loolu lépp bu dakkee nag bu ko defee jàmm dana mën a am ci réew mi ñu topsal ci nag président de la république na leeral sénégalais yi ni moom mënta nekk candidat deux mille vingt quatre mënta doon ñetteelu candidat parce que constitution réew mi da koy tere na ko leeral du ma ni waaw du ma ni déet du andi jàmm ci réew mi ndaxte réew moo dem mandat réew yu bëri ci àdduna mandat da koo da ko koo yàq kon nag mandat bi lu ñu war a leeral la bu ko defee jàmm mën a am ci dëkk bi looloo jébbal nañ ko ko nag jébbal ko yeneeni mbir mm. yu jëm ci mbirum njàng mi yu jëm ci mbirum santé ak yu ak yeneen e, mbir yu jëm ci élection yi ni mu war a doxe e, bu ko defee ñu jaarale ko yoon kenn bañ a e, boddi sa morom ñin boddi woon ñu dugalaat leen bu ko defee sénégalais yi buñ demee ci tànn jot ñoom ñoo moom seenum réew kun bëgg a jox seenum réew ñu jox la ko mais kenn du jaay doole kenn d'accord léegi est-ce war a bokk bokk ci yii daal uh-huh. lan jébbal sëñ bi mu yóbbaale ko ni ñu nag mm-hmm. lii ngeen ma ñaan rafetlu naa ko bu ma demee dina sëñ dinaa rendre compte sëñ mun Muntaxa mi nga xam ne moo fi yabal te moom nee na su ngeen kon ñaanee ba ba ba ba su leen ñaanee ngeen may ko moom dana ñaan beneen boor bi ñoomit it buñ ko mayee moo gën ci réew mi gën ci ñoom buñ ko mayul dina yëgal sénégalais yépp ne ñaan na leen may ñu ko léegi nag euh, bu boobaa euh, lu mën a xewit nag moom def na ci lim ci war a def moom moom sang bu waaw yéen ñi yéen ñi moom càkkutéef yooyu est-ce que am ngeen yaakaar euh, président Macky Sall adhéré ci non xam nga ñun président Macky Sall amuñu problème ak am ci yaakaar ci moom ak ñàkk cee am yaakaar ci moom parce que ñun kennu ñaan rek lan mën a waxal hmm. ndaxte sëñ Mountakha ñun jàpp nañ ni moom ak ay naataangoom xalit généraux ñun jàppewuñ leen ay citoyen ordinaire ñun dañoo jàpp ni kilifa diine yi euh, ak boor bu ñu mën a féete muy bu jàngu bi ak bu kilifa diine islam man ñun dañoo jàpp ni ñoom duñ ay citoyen ordinaire parce que réew mi dara mënu fee baax te dugalul leen ci ñun loolu lan jàpp kon bu du ñaanee moom sëñ Muntaxa ak dayo bi mu am ak ku ko xam ci ni du wax ci caaxaan lépp lu muy wax ci baatin lay waxe ñun jàpp na ne suñu ñaanee dañuy gëm ni loolu mun a ñaan moo gën ci ñun Mm-hmm. maintenant nag beneen boor bi suñu demee ba nga xam si ñoom gis nañ ni ñu ko may moom comme ni mu ko waxee dina ko fésal ni ñaan na leen mayuñu ko bu boobaa ñun dañuy delloowaat rek buum ca boy boy ba. d'accord maanaam dañuy daal di taxaw rek. Mm-hmm. parce que du ñu nangu kenn nekk sunum réew. ñu fal la pour nga aar ñu yiir ñu defar réew mi nga ni jaay doole doole jot ñu la jox nga koy utiliser contre ñun dina jaay doole. loolu duñ ko mën a nangu tey duñ ko mën a nangu ëllëg. d'accord koo tax man moo moo tax ñun loolu amuñ ci benn tiitaange. Uh-huh. fi mu toll nii président Macky Sall moo ci yor cëgg cëggal guyam su fekkente ne dafa jàpp ni ñu teg dossier bi ci suuf comme dara nekku ci ñu wax juge bi mu daal di def non lieu ñu daal di jàll ci leneen moo gën ci moom gën ci réew mi bu dee gisul lool gis ni jàmmaarloo moo ko gënal bu boobaat ñun dañuy taxaw jàmmaarloo moom parce que ñu am beneen. yoon bu nu jaar budul def loolu. d'accord wax nga ko président Macky Sall fi mu ne mooyoo yor cëggal gu yam ndax yéen euh, da ngeen fas yéene euh, toog rek xaar ba bés bu waxtaanam ak xalifa bi sotte wala am na àpp woo xam ni jàpp ngeen ne mënu leen koo weesu ci xaar. sëñ Mountakha comme niñ ko waxee délégation bi sëñ Bassirou Mbacké Porokhane jiite nee noon ko mm, sëñ Mountakha kilifa la te kilifa kenn du ko sàkkal délai lim ñu ñaan wax nañ ko ci rek ne ko da cee am yoo xam ni Euh, ay ay ay sàkk càkkutéef yu jàmp la càkkutéef yi jàmp yi mooy ñin téye ci prison yi ñu mën leen a libéré ku ci mel ni comme ni ma ko limee sànq euh, Clédor Sène ak Assane Diouf ak Guy Marius Sagna ak ñi àndoon ak ñoom nga xam ne ñoom sax dañ leen a jëli woon ci seen i kër avant manifestation bi am nga xam ne ñoom sax dañ leen a jaay doole li tubaab di wax détention préventive lañ leen def maanaam njot ne nar na ñoo loolu nag réew mu koy def mooy dictature moo fa am kon ñoom jàpp nañ da leen wara war a euh, libéré nu mu gën a gaawee ñu ànd nag ak ñëpp ñu doon manifester parce que booy wut jàmm da ngay bàyyi lépp loo xam ni fitna lay doon parce que loolu mooy wut jàmm euh, tigi boo xam ni defoo ko ci roof galgal mm-hmm. kon nag ñun jàpp nañ ni ñoom euh, kilifa yi nu ñaan sëñ Mountakha mun ñu koo jàppal délai waaye comme moom nee na bu ñaanee yi nga xam ni Euh, ñun teg nañ ko ci loxoom yëpp moom buñ ko mayul dana fésal Sénégal gépp ni ñaan na ko mayewul bu boobaa nag ñun ca la ñuy jàpp ni fa la délai bay jeexee bu ko defee nag dañ jël suñuy responsabilité mais moom ci moom nee nañ ko am na ci euh, ay càkkutéef yu nu am yu jàmm ak càkkutéef yoo xam ne xëy na may mën naa xaaraat tuuti yi nga xam ne mën naa xaaraat tuuti peut-être mooy yi nga xam càkkutéef la yoo xam ci mbirum santé la jëm wala ci mbirum njàng mi wala yeneen mën nañoo xaaraat yi semaine mais ñeneen ci kaso yi moom ta xaari semaine dañoo jàpp ni euh, lu mu gàtt gàtt fii ak semaine war nañoo mën a wax lu leer maximum pour wax ni dana leen libéré wala duñu leen libéré bu ko defee loolu dana indi beneen euh, sàkku jàmm boo xam ne ñoom wane nañ ko bu ko defee nag yeneen yet ñu jox ci garantie parce que constitution bi mooy tere. Mhm. nga am ñetti mandat yu tegaloo. d'accord loolu constitution moo koy tere. kon mhm. foofa président Macky Sall du ma ne waaw du ma ne déetam ji andiwul jàmm ci réew mi. Mhm. na ko leeral ni moom mënta nekk candidat deux mille vingt quatre bu ko defee jàmm ni ñooy. d'accord Ousmane Sonko miit nga xam ne ci jaay doole lan ko woo woon naan ay contrôle judiciaire yooyu jàpp nañ ñu ni yëfi tappale la nañ ko teggi parce que mbir mi comme dugg nañ ci ba ci biir gis ni ab complot bu leer la moom ak nguuram ñoom ñoo ni rëjj ci biir. nekk fi di jéem a jaay doole doomu jàmbur pour wax wuti pexe comme nañ defoon ci Khalifa Sall ak Karim Wade jéem ko éliminer. Mhm. pour du bokk ci élection yi ñu jëm loolu mooy pexe yi ñu laloon waaye pexe mi yàlla. da laale na ko parce que comme ni ñu koy waxee. Mhm. yàlla ay ci pootum buur. waaw day bàyyi ba mu weer mu taw ci kawam te yàlla buur mënalu ko dara. waaw daan nag jàpp naa ne eh. lii comme yàqu na. Mhm. mbir boo koy jéem. nga gis ne yàqu na da ngay muñ. te wut leneen. waaye lii moom mënatuñ cee woo Ousmane Sonko. kon képp ku ci laale woon nañ la bàyyi nga dellu sa kër bu ko defee jàmm ne ñooy. d'accord ñu daal jàll ci leneen ñun loolu lañ jàpp ne moom mooy indi jàmm ci réew waaw yaa ngi wax sànq euh, itam manifestant yi nga xam ne ñu ngi wéy ji leen jàpp am na ñu jàpp ne infiltration dafa am maanaam yëf yi dafa am ñu ci rax euh, bu fekkee dafa ñu ci rax di def kati ñaawteef est-ce que euh, bàyyi ñi doon manifester ka toj ñooña laay wax ak a yàq yëpp jaadu na ku ni capitaine Dieye démb rek biralaat na ni infiltration dafa am ek am na ay forces occultes ni mu ko waxee yoo xam ne xëy na yëngal réew mi moo leen ci tax a jóg. dama wax jooju ñi ko yëkkati weesuwul ñetti nit ba ñëw ci ñeenteel boobu nga lim sànq dinaa ñëw ci moom waaye ñi ko ñi ko njëkk a wax ma weesuwul ministre de l'intérieur moo def ab discours am boo xam ne Sénégal yëpp bi ko déglo dañoo rus xam ne ministre de l'intérieur bi moom wane na ni moom euh, feesul siège bi ko jox que wax dëgg yàlla li ko sama benn euh, rakk di waxee ne sàppooti bu ñorul la dañ ko war a de dencaat dugal ko ci saaku ceeb bi ndax mu ñor kon nag man jàpp naa ne kooku waxi waxi waxi Balla Pouye de la moom ministre de l'intérieur li mu waxoon di wax ak terroriste ay sénégalais bon temps lañ yoo xam ni dara ñorul leen lu seen réew ñoom ñoo génnoon pour aar seen démocratie aar seen ak ak yelleefu ñoñ ñi nga xam ne ñoom lañuy jaay doole mm. donc keneen ki mooy Aïssata Tall Sall dem ci eh, beneen eh, te télévision ca bitim réew wax fa wax ju xeebu naan ay force occulte ñoo nekk Sénégal alors que ay sat Tall Sall xam nañ loolu mu wax amul li am mooy ay sénégalais yoo xam ne danoo gis ñuy daay jaay doole nit naam am na yeneen yu leen metti woon ak ay jafe-jafe yu amoon ci réew mi yoo xam ne tax nañu ñu gën tipp loolu moom moo am mu war koo leeral muy dem ca ca ca ca tubaab di leen wax loo xam ne dëppoowul ak li am keneen ki nga ci mën a dolli mooy ministre de la justice nga xam ne moom dañ ay mbër lañ yoo xam ne dañoo préparé wu ba am doole te amuñu combat moo tax ñu génn di manifester looloo di waxi kasaaw kasaaw kon nag ñun jàpp nañ ni lii nga xam ne moo ci dolli ko mooy capitaine Dièye c'est pas parce que moom ab ancien militaire la que day taxaw di wax nit ñi loo xam ne teguwul fenn loolu mu wax waxi kasaaw kasaaw la moom it ay wax ju teguwul fenn la joo xam ne ñun joxuñu ko benn importance. do benn force occulte bu fi nekk président Macky Sall ñu mel ni ñooñu bu leen dee déglu dana dana nekk ci jafe-jafe parce que réew mi suñ ko bëggee yor ci fitna sénégalais yi duñ ko nangu ci président Macky Sall jox ñu ko doole ji ñun ñëpp ñu ànd nekk ci ginnaaw mu war ñoo yiir war ñoo euh, aar. mu ñuy muy jël doole jooj ñu ko jox di diñu ko xeexe mhm. donc ñun jàpp nañ ni képp ku ko bëgg a dimbali da koy wax dëgg mhm. ne na bàyyi képp comme yaakaar ne mën na koo wuutu mu koy jéem a faagaagal président Macky Sall bi mu ñëwee 2012 ba léegi ci loolu la nekk képp comme yaakaar ne nar koo wuutu day de da koy def yëfe firaw na d'accord naan ni nag naa ko jéem a faagaagal bala moo gën a am doole leer na waxtu bi moo ñu dab kon nag damaa jàpp ni uh-huh. loolu bu ko defee moom mooy indi jàmm ci dëkk bi mooy mu dal xam ne réew boo koy jiite ba nit ñi jàpp ne yow mii jeexal nga. Mhm. da ngay bàyyi ñu tànn keneen. te doo indi benn jalgati parce que loolu mooy jur jàmm. d'accord Dame waxtu bi moo ñu dab ñu tënk ko rek jeexal euh, parce que loolu ci xeex bi engagé wu nga ci waaye am na weneen xeex wu ko jiitu muy euh, wu jàngalekat yi seen àq ak seen yelleef yaa ngi ci woon ngeen amoon itam ay càkkuteef yu ngeen biraloon jëme ci nguur gi ana fu ngeen ci tolloo ci ci yooyu lay jafe-jafe. waaw loolu moom fi mu toll nii jàngalekat yi nee nañ mënatunoo xaar. jàngalekat yi danoo gis ni li ëpp ci seeni jafe-jafe nguurug Sénégal jéemu ci dara te mën naa cee lim bi nga xam ni moom lañu lañ tuddee lenteur administrative mooy acte jàngalekat yi acte avancement acte d'intégration acte de validation acte de reclassement ak acte même de radiation pour ñi nga xam dañuy dem retraite ñooñu Mariama Sarr mi ngi toog di lambar lambari diggante Ndakaaru ak Kaolack signéwul acte jàngalekat yi loolu la war a bàyyi bu bëggee jàmm te ñun jàngalekat yi nee nañ na syndicat yi mobilisé wu loolu moo tax ñu ngi wax G20 ak G7 nañu waxtaan bu ko defee ñu jàmmaar la ak ñoom bu ñu waree arrêté cours ñu arrêté cours yi pour ñu jox jàngalekat yi seeni i parce que lii jaay doole lay bëgg nur di salfaañ ak yeleefu jàngalekat yi di saboter seen carrière lool mënatu la continuer hmm. ñu toftal ci nag ñi war a dem formation ñëpp di xaar ñu yóbbu leen formation bu dee bëgg nañ jàmm ñu fexe tamit leen déggoo woon ci système de rémunération mooy ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi ten bot di ci jàngalekat yi jaay leen doole nga xam ne li leen di fay méngoowul ak li nga xam ne moom la loi mi wax ak sàrtu réew mi looloot ñu teg ko ci suuf comme nañ étudier woon système de rémunération bi ci ab cabinet privé defoon ko bu tudd MGP Afrique mi ngi ci table président ma Sall ñu war ko toog waxtaane loolot yii ak yeneen yu ma fi limul yi ci mel ni DMC yeeg jafe-jafe yi nekk ci njàng mi dañoo bëgg président Macky Sall mu taxaw ci nu mu gën a gaawee. Mm. bu ko defee mu mën a jur jàmm bu dul loolu at mii ñun pare nañ pour jàmmaar jàmmaarloog moom comme nañ ko daan defee. parce que jàngalekat lu ngeen ko ci àppal lan ngeen mun a xaar itam war nañoo jóg taxaw ci loolu. lan ngeen ko àppal wala bu ko deful rek euh, da ngeen di soobu ci grève. ñun amatul délai. maanaam mm. fi mu toll nii kay jeex na tàkk parce que jàngalekat yëpp ñu ngi wax ni mënatunoo xaar fi mu doon nii délai amatu fi xajatu fi léegi kay Mariama Sarr comme signé la da ngay gis jàngalekat bu toog lu ëpp at euh, di xaar actam acte bi du ci jot ñu toujours bu demee ñu seetal ko rek ñu ne ko ma nga ma nga signature mais signature bu kese kay mënta def lu ëpp at. Mm. kon jàpp nañ ne loolu ay tappale la yoo xam ne Mariama Sarr mi ngi koy def ci fonction publique mooy poñ bi ci gën a rëy rëy fi mu toll nii mooy bi gën a sonal jàngalekat yi. Mm-hmm. ndaxte loolu seen carrière la. kon nag ñun jàpp nañ ne bu ñu bëggee jàmm président Macky na wax Mariama Sarr mu signé acte yi. loolu mooy jur jàmm su ko deful jàmmaarloo bi dina dooraat. jërëjëf Dame Mbodj secrétaire général national bu CUSEMS authentique bokk itam ci coalition citoyenne le peuple ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal ci matinalu Rewmi FM tey. merci beaucoup